yaay dañuy dut suñu baaraam ba tey ci jigéen ji koy def mhm. surtout jigéen ñooñu nag mhm. jigéen ju koy def mhm. jigéen ju koy def moom te pare am na ñoo xamante ne dañuy dem ba nekk mag waaw koy di ko ñàkk xorom dañu am borom kër merci ak naan sama boroom kër nekkatu fi man daal bëggatuma bëggatuma nangam bëggatuma dara mais nag nee nañ jigéen boo tollee ci sëy dangaa war a sëy ku sëyul sëyantu waaw ku sëyul sëyantu te dégg naa ci sam ci ci ci benn waaraatekat Mm-hmm. nee na képp koo xamante ni si yaa ngi jël sa loxo di fowe sa kanam muy góor muy jigéen mm-hmm. keroog yombal xiyam sa baaraam yëpp ay awra lay doon na leer mooy màndarga bi sa baaraam yëpp day doon ay awra yu bari <laughs> sa baaraam yëpp ay awra lay nekk ay awra lay nekk mm-hmm. moo xam ne gauche ngay jël moo xam ne droite bu ko defee nag yëpp doone awra ku la gis xam ne yow mii da doon ballu kon nag bàyyi leen ko ci bi muy teel te tuub mhm. ba pare jamono ji fi mu tool tiit dafa jot dëgg la tuub bi dafa jot mhm. waaw mhm. ah! ana luy ndey mbalu nag ana luy ndey mbalu góor gu koy def ba ko te takki soxna lema ngi nii nga ni bëgguma lem kaani laa bëgg kaani laa bëgg kese waaw man de am na ci koo xamante ni nee na ma man sama jëkkër chaque jour chaque jour chaque jour du tëdd ak man ba bër set tambaluwul mu ne ma léeg-léeg damay nelaw nelaw la di ko may bët nee na ma bu ko deful ci kaw laal bi bu jógee dina ko def ci douche bi ndax nee na ma douche bi dafa am euh, porte aluminium boo xamante ni bu nekkee ci douche bi mu ne ma su ma sànnee sama bët dama koy gis. Mm-hmm. bu ko deful ci kaw laal bi ma nelaw mu yërndu ma ba dafa ne nelaw naa mu ne ma te nelaw ma de dama koy gis nee ma dina ko def ci douche bi. te su ma paree su ma ko ko waxee mu ne ma moo attaqué ma. mu ne ma te ni ma war a mel. Mm-hmm. nee na ma di jigéen joo xamante ni macha allah jeeg boo xamante ni laa dama ne faaj mu ne ma waaye nee na ma mballu moo ko gënal séq ak man tàmm na nee na ma war a mu sëq ak man sax nee ma ba man mu yëg sama bopp nee ma mu jug moom ci boppam dem ci duus bi mballu mhm. waaye nee na ma daanu ci sama kaw ak ko egg ci sama kaw ak ko ko rey la yemal ma ne la faaw mu def ko mhm. faaw mu def ko parce que da koo tàmm mhm. dama ne la lu mu lu ñu xas ba tàmm la xanaa nga bañ koo xam waaye boo ko xasee xam jeex na. Mhm. li tax may euh, insister nii. Mhm. dama ni la dafa am xale yoo xamante ne si wan naa la ko keroog. Mhm. dañuy jël ay vidéo di la ko yónnee ak audio. daane la gis nga. man daal lii moo ma sonal. chaque jour chaque jour fi ne mënatumaa lekk mënatumaa naan damaa sax jeex. parce que mënatuma aussi génn. Mhm. ndax chaque instant sama xel daf ciy dem. Mhm. may foowe sama bopp. waa kooku yàquwul. yaa ngi dégg jooju wax. kooku dafa yàqu ndax ku dem ba mënatoo lekk mënatoo naan. yow mhm. dara safatu la. dara bëgg a jëtu la. minute bu ne rek yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi éjaculé. minute bu ne yow yaa ngi mballu minute bi ne yaa ngi mballu di daanu di dem di sangu ji di ñëwaat boo tëddaatee tuuti sa xel nekkaat. sangu lan. ba pare am na ñoo xamante ne xamuñ xamuñ buñ buñ mbaloo ba pare dañoo war a sangu set am na ñoo xam ne xamuñu ko bu ñu mbaloo ba pare pare buñ sangu mbaloo ba pare xamuñ ni loolu bàkkaara nga ca pare nañ jàll ca leneen talu leer laa lay wax vraiment bu ñu paree jàll nañ ca leneen xamuñ ne dañoo war a sangu set xamuñ ne dañoo war a sangu julli rama dëkk bi ci boppam moom mooy yàqu xale yi léegi seen loxo ci seen awra waaw awra yi ñuy defar nag di ko indi li leen ko jox ñu koy sëye dëgg la te du góor du jigéen mhm. ab awra bu ñu créé rek jox leen ko la mu ànd ak ay vivre am ak yéppam dëgg la ñu jël ko di ko sëyee ba ci santé seen bopp ba loolu moo leen di dem ba eh. gënal leen sëyeeg sëyeeg sëyeeg seen nawle te awra yooyu ni mu amee bu góor noonu la amee bu jigéen de am na yoo xam ne ay sexe jigéen la ni mu doone yu góor góor jigéen ñi di ci yëg seen bopp noonu la amee jigéen mhm. waa léegi yow boo amee awra boobu ci sa biir nekk nga doon at nga doon jeeg boo xam ne da nga ne soxlaatuma sëy mm-hmm. waaw looy sa doy sëy dëgg la doy woo dara sëy bi mm-hmm. ndax yow chaque jour li nga xamante ni si moom moo la war mottali yow yaa ngeek moom ci sa biir kër mm-hmm. xanaa nga mbubboo jëkkër ji turu am naa jëkkër waaye fu sa jëkkër génne nga jël awra boobu defaat sa kanam ba tey loolu mballu la kese ndax da ngay ànd ak awra boobu ànd ak awra boobu ba daanu moom. ba yëg sa bopp du leen bul ma sa yëg boppam. am yoo xam ne dañ koy branché ci courant danoo sax ñeme. Mm-hmm. ndax yi ñuy yow courant ak ni mu mel nga branché ko ci courant. di ko def ci sa kanam lu ne mën na la ci ak yi ñuy def pile. di ko mm-hmm. def ci sa kanam. moo tax cancer yu bari waaw. Mm-hmm. góor ñi aussi am na awra yoo xamante ne si awra jigéen la. yow boo ko jëndee euh, teg ko ci. ci sa néeg mhm. wala nga jënd vibreur mhm. yóbbu ko ci sa néeg minute bu bu ci sa xel demee mhm. heure bu ci sa xel demee nga jël ko utiliser ko nga gàddu ko daal di xëcc sa buntu karaj karaj tëj ñu naan moom de du dem fenn wax dëgg yàlla day tëdd fekk ma ngay tëdd fekk la nga nekkee génn dem fenn ko gën billaahi wallaahi bëri na ci nag yaa sama doom moom demul fenn utul xarit utul àndandoo parce que doo ut xarit doo ut àndandoo bëggoo ku la seet si toxoo nag naanoo yaa ngi ca biir kër ga ni bokk bokkaaral mhm. waaye la nga nekkee moo gën a yées ba pare nag yaay yi tamit yaay merci foofu laa bàyyi xel ci doom yi ram vigilant di vigilant léeg-léeg sa doom tëju di tëju di tëju del xool fii mu tëju lan la fiy def am na koo xamante ne nee na ma man sama doom nee na ma day day day tëju mhm. ne na dafa jékki-jékki rek nee na ñëw ubbi bunt bi def fekk xale bi di caddi caddi mhm. nee na mun a kii est ay rab nee na waaye bu ko gisee rek day daw génn yaay nangam wala yaay nii nee na ma ne ko waaye yow ni ma la fekkee léegi ngay tëbëg di lan na mu ne ko man mii du man nee na mu commencé ni sama doom dafa am ay rab dama koy utal ay débat débat ak ay ay ñaan ak affaire yooyu xam nga ci loolu lañ gaaw. Mhm. boo gisee sa doom di def lenn doo surveiller wala nga xool lan moo tax muy def lii. danga naan rek naa dem ca maa ba. wala naa ko utal ay kii naka taraba naka. xale bi ba lekk la day mballu. lekk la ba nga set waaw. ndakate xale bi day mballu. ci la yaay ji nekkee di topp xale bi di ko déglu di ko bàyyi xel ba xam ne xale bi day mballu te xale bi buy mballu day jël livre porno yi di ko teg ci kawam. naa kenn mënatu koo dindi. est-ce yàlla doo ko mën a mu jël koowu jigéen moom daal na gis daray jigéen rek. jël ko teg ko ci kawam di mballu. te nee na ma yar naa ko fi ma ko war a yare. Mhm. nee na ma di ko bàyyi xel. ba pare xale yi tamit rama sa doom bu amee yenn âge yi téléphone del bañ di fanaanoo même bu dee bu dul téléphone yi sa doom bu amee yenn âge yu waratul fanaan ak yow mm-hmm. yaa papaam da gis koo xamante ni bëgg doom wala bëgg lu neex doomam moo ko ciy dugal kër ga bëri ay néeg mu ne man de bu tëddul ak man du nelaw xaaral ma lalal ko ci suuf xale yi ñoo mag seen ndey yeeg seen baay. mais am na ci ñoo xam ne aussi tamit dañuy sëy mais benn néeg la am. waaw ba ci ba ci lool rek bu fekkee da ngay sëy yor benn néeg jar na sax rama nga utaat beneen néeg su fekkee sa doole tolluwu fa. Mhm. nga xool noo ko organiser. bu dee sa doom day jàng nga bàyyi ba mu jàng. dañuy pattal seen benn bët. wala nga nga nga nga nga teel koo def ak seen baay balaa xale bi di tëdd. Mhm. nga xool noo ko organiser mais tëdd ak sa doom di sëy sa borom kër wala sa borom kër di sëy ak yow. doom ja di leen bàyyi xel. lu mu tas jar naa doro <laughs> naa doro ga xale de. ah doy na de. marque yonent bi xale yi léegi. dëgg la seen ndey bàyyee leen di njëkk a nelaw. ak bu fekkee nag xale da koo lalal ci suuf. Mm. di xaar naan damay xaar mu nelaw minute bu ne nga yër. Mm-hmm. bàyyam dina toll foo xamante ni si dootula mën a xaar par force dangay ànd ak moom. boo ànd ak moom na xale yi patal seen benn bët moo tax man la jar na <laughs> jar naa doroge bu la leeree ni dangay ànd ak bàyyi nga doroge xale bi te benn néeg nga am. dëgg la de. ah doroge ko. Mhm. mu nelaw. dëgg la nga doog mhm. xale yii. Mhm. parce que am na ci koo xamante ni si. dégg naa da doon wax euh, yaay ji naan maam ji. naan ko sama yaay ak sama papa bu guddee damay dégg sama yaay day dóor sama papa day dóor sama yaay rek. chaque jour da koy dóor. dëgg la. sax guddi dama koy dégg la koy dóor baal ngay dégg laal bi ni mu yëngatoo. Mhm. kon nga xam ne xale boobu bu xamee tuuti rek. Mhm. dina xam ne yaayam a papaam mi macha allah ña nga ci. dëgg la. kon nañuy sóoraale suñu njaboot. di leen bàyyi xel bu baax di leen mm. bu jigéen day leen ko surveiller. wallaay dëgg la sama doom utul xarit utul àndandoo. Mm-hmm. sama doom amul kenn. Mm. sama doom jàng rek lay def wala sama doom sama liggéey rek la nekk. ma nga ca biir kër ga di def lu demul fenn fu ma jëm ma nga ca biir kër ga. Mm-hmm. bari na ci xale yoo xamante ni sii mm-hmm. dañuy lelu. dëgg la am na ci xale yoo xamante ni sii dañoo bon. yàlla moo leen koy kiyee mooy xale yooyu nga xamante ni sii. ay nitu kersa lañ. waaw ay nitu kersa lañ. yaay yi ut dara sax defal ko sa doom pour denc sa doom. Euh. ñooñu moom du ñu génn. waaye xaw arab am na xale yoo xamante ne si. Hmm, nitu kersa yi da laa bañ. waaw ñooy def musiba de. mais teewul bis bu ñu jekkoo musiba def ko xale kersa mais teewul. Hmm. nga vigilant di xool sa doom. Hmm. des fois nga fekk sa doom ci biir ne nga ne ko yow génnal nga ñëw ci salle bi yow sa néeg ngay toog chaque jour. wala nga ñëw ba ma ko ni ko looy tëdd xëcc darab bi nga tëdd xool. ñëw ndook yow ba pare di xool seen téléphone doom yi. nañuy xool seen téléphone donc. xale yi de léegi fépp la ñuy côté léegi la ñuy dugg ci ñuy codé. dañuy codé lépp discussion sax dañ koy codé fépp dañ koy codé léegi. Mm-hmm. doo mën a dugg fenn doo am accès ci fenn. Mm-hmm. am na ci xale yoo xamante ne si seen téléphone bu ñu law bu ñu leen woowee yow mi seen ndey mënoo ko décroché. Mm-hmm. dañ codé foofu. dañ koy codé pour bañ rek. nga décroché pour wax ak ki ñuy wax. ma pes la ba nga maa ne di la. dindi di di di di léegi nag yi. Mhm. war nañoo jóg foofu. Mhm. mais mhm. jàppale ci foofu. dëgg la dëgg la Rama. papa yi nañ ñu jàppale ci foofu. Mhm. gis nga lépp lu ñu woy dëgg la. papa yi naan nday nday kenn la bàyyi bàyyi ñëpp. sala bëggoon a ñëw papa yi lijjanteetuñ kenn lijjantiwuñ sax seen bopp bay lijjanti doom nday daa la sonn nday a dee. mais nañuy dimbali jigéen ñi. Mhm. jigéen ñi sonn nañu gis nga doom bu góor bàyyi moo koy moo koy moo koy lii doom bu góor. bàyyi koy lijjanti moom moo koy lijjanti. bu mhm. fekkee baayam teel naa génn àdduna. yow mhm. mii ndijaayam jegeel sa sa jarbaam. Mhm. di waxtaan ak moom di ko delloo si ah sa yaay di jàmbaar la. sa yaay di lii la sa yaay di laa ba pare. di di di ko topp. di ko topp vraiment naan sama jarbaat la waaye faalewu ma. faalewu ma ma topp ca xaj. na nañ ma baal ci kàddu. léegi bu ëllëgee. Mhm. doom jooju bu tekkee mën naa law ba teq la. wallaay dëgg la mën naa keneen ak keneen. ak mhm. doomu bàjjan la nag ak doomu nijaay ak sa ay doom. wallaay dëgg la mën naa am tay jii lu ne gaañ ba ñëw jël ci sa njaboot. Mhm. ndax teral la ci ba yóbbu la màkk. li duuf ci nag wi lépp xajul ci cin li dafa mel ni sunu waxtu dañoo dab ndax nee naa la saa su nekk rek yaay booy décortiquer nit ñi du ñu bëgg sax nga bàyyi mhm. ndax euh, li ngay wax fu leer nga koy teg ba tax na ne naa la sunu waxtu daf ñoo dab dama lay bàyyi rek nga daal di tàggatoog mbokk internet yi nga xam ni mhm. ñoo ñu doon seetaan fii ci Sénégal 7 mhm. xanaa di sant ñëpp rek di baalu àq ñëpp di wax ni chaque jour rek comme yàlla dañu fee <laughs> kii pour ñuy wax li may uh-huh. tëjee chaque jour. Uh-huh. ñoo ngi jéggalu ñëpp di baal ñëpp ak waaye képp koo xamante ni si dangaa nekkoon ci mballu na ko baax gis nga xale yi daba. Uh-huh. dañuy dem jëndi lubrifiant. lubrifiant bi. koo gis sa doom yor lii rek nangul. tapes koo gis yor lii. nangul. gisoon naa ci xale boo xamante ni si yàlla xam na ne yor na ko te jigéen la wallaahi azim ma laaj ko ko. mu naan man moo lii day dara lii de lu ñu diw ci tuñ la lii de lu ñu kii la ba mu xamoon lan la ci beneen façon la nekkoon wala dañ koy diw ci sa ween day tax sa ween day da dangay am ween yu rafet yu nàngam ndekete pour ballu la ndekete wan leen ko mhm. Librefient képp ku gis sa doom yorati ko wala kaate yi am maan na nga ko xool pour jéeg ji la dañ lay nax naan la lippaleer la de nangul xoolal ci saag bi vérifier vigilant leen di. xool seen doom vérifier dee leen yi yu ndaw yi nga xamante ni si amagoo leen soxna tey. Mm-hmm. mballu arrêté leen mballu bi ngir yàlla ak yonent bi pour bu ëllëgee bu ngeen amee soxna. jariñ ko dara ah, mu xool leen mu xool leen ñun la. añaan I don't I don't care <laughs> waaye. kii rek dem di jëndi aphrodisiaque <laughs> maa la wax loolu de gis ngeen tey jii lii lañ leen indiloon ci sama yaay Rama docteur Dieg ji wan na nag façon bi nga xam ne moom la xale yi di jël di ko utiliser mhm. ngeen xool ko bu baax te ngeen bàyyi ko xel sa doom bu yor luy niin wala luy di tax bu nduróowu lépp a sax xale yi mën nañ cee mbalu yàlla na ma yàlla baal te mhm. jéggal ma ci kàddu yi muy góor di jigéen comme que ci ñaar camp yëpp la ci góor ki la ak ku jigéen bi day leen leen bàyyi xel jar na sax ñuy vérifier caleçon xale yi mhm. jar na ñuy vérifier sili bu yi talent ci xale yi bu baax a baax a baax a baax foofu rek laay tëjee nuyuwaat sama yaay ajaratu ki ne Diouf jaaga ba tey maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax yaay Waly Seck yaay Alioune Seck yaay Aïssa Rasoul waaye nag nee naa la yaayu képp koo xamante ne nii rek bëgg nga lu baax tey jullit te tey aw ci yoonu siraatal mustaqim sama yaay bëgg na laa jur euh, jaaga yal na la yàlla defal jàmm may la wér ak gudd fan defal la tawféex ba tey rek nee naa la euh, euh, waaxel comme berndeel rama mhm. duma duma duma émission mukk di bàyyi ndax nee naa la fii diwaanu Serigne Saliou la kër Serigne Saliou la ndax lépp loo xamante ni dañ koy def mu laal ki nga xam ni mooy Serigne Saliou mhm. suñu yaakaar tey ak ëllëg borom njurund ak borom njàppandal mi nga xamante kal la moo fi bàyyi mhm. daaraam yi gisatuñ ko waaye buñ ko gisatul nag dañuy jàpp ci daaraam yi jàpp ci dongaam yi mhm. di leen teral ba tax na xelkom berndeel day dem xelkom le 21. le 22 le le 20 la 22 le 23 le 24 décembre. fële ca xelkom ñuy toggal nag nee naa la fukki daara ñaar fukki daara la ñuy toggal ren. di ko def 92 mana. Mhm. moom la ñuy def képp koo xamante ni nii rek bëgg ngaa jokk ci liggéey bi rek nee naa la wooteel ci 78. 360 31 31. 78 360 31 31 lépp. ci dongay Serigne Saliou la jëm mhm. woote baa ngoog yëgle baa ngoog képp ku ci bëgg a def sa ñaq wala nga def ci sa doole wala nga def ci sa alal woote baa ngi noonu lépp ci xel Xelcom lañ ko jëmee ca daara jox ko dongo yi mhm. yëgle baa ngoogu sama yaay ñuy tàggatoog yéen ak tàggatoo bu dul jeex yaay yaay sama doom sama xarit Lamine Canada Lamine Canada Lamine Canada maa ngi lay nuyu bu baax a baax borom borom boroom jëppal maa ngi lay nuyu Lamine Gueye bi sama xarit ci sama lépp maa ngi bu baax a baax Lamine. yaar <laughs> naa Lamine nuyu nañ la jërë ngeen jëf beneen émission jël jël yi ak beneen thème man ak sama yaay Rama docteur Dieg ji Lamine Gueye fóon nañ la borom kanadaa <laughs>